maamam bi ñu ko fi taxawalal ñoo ngi nii soxna euh, maire Diop ak euh, soxna Bousso euh, yaa Bousso Mbeng ak Mbayang Diop ñoom ñoo teew ak seeni doom ak seeni sët ñu àndandoo di liggéeyal soxna Jaara ci euh, gox bii di Mboussobé Kaay Baax ànd kook sëriñ Basiiru Bousso ren nag ñu def liggéey bu amati solo at mu jot ñu def ko nag waaye ren nag dañoo gën a yokk seen loxo ndax soxna matiloo mi nga xamante ni moom mooy jëwriñ ji ak maire Joom mi nga xamante ni moom moo jiite waañ wi xëy na danoo am ngant rek waaye liggéey bi leen war lépp def nañ ko ndax mboolem loo xamante ni lu jëm ci waañ wi la dañu ne xaaruñu ci kenn ñoom daayira soxna jaar bi ñoo koy taxaw beneen bi ci toppitam ñu amoon kees goo xamante ni dañ ko doon taxaw maanaam lépp loo xamante ni ci wàllu palaat la ñoom faggul nañ ko seen bokk ba dootuñu ko lée kon nag loolu di lu am solo kon bu ñu fi ñëwee war nañ koo leeral samedi war koo leeral xidma ba ñëpp dégg ko kon nag dañuy jox soxna euh, Mbeng euh, suñu yaay mu am ay kàddu yu ci jàllale rek asalaamaaleykum ñu ngi julli ci yoonant bi julli ci yonent bi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan ci yàlla lii ñu fi def yàlla na yàgg te sax di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér lépp moom la yàlla na fi yàgg te wér yàlla na suti maamam ak baayam aw fan ci màggu yàlla ak baaxu yonent bi tedd bi ñuy sant nag yàlla di sant nag sëñ Basiiru Buso mii sëñ Basiiru Buso suñu sëriñ suñu xarit suñu doom defal na nu loo xam ne ci jaxaay kenn amu ko léegi bi ma toogee fii dama ne lii jaxaay am kenn amu ko dëkk nañu dëkk ay téeméeri at ay fukki at ay ñaar fukki at waaye kenn amul li ñu am ci jaxaay mbàkk mbake yaa ngi fi buso buso yaa ngi fi sëriñ baa ngi ñuy sekk seet si ñun ku ñu seet si waa sëriñ Touba di ñu seet si mel na ni ñun ñëpp seet si nañu kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax maire Diome ah nekku fi waaye nag def na lu rëy barki dem bi mu ñëwee ñun ñëpp suñu xol dafa tooy ndax nag matiloo mooy suñu jëwriñ moog say bu waaye nag tubaar tubaarkàlla lu ñu liggéey maire joom liggéey na lu ko raw yokku nañu xol yokku nañu xel yokku nañu xalaat ndax dafa yoroon këllëm bii nag naan sama këll bii damay wut addiyaay sëñ Touba addiyaay sëñ tubaa jooju bañ demee Touba sëñ bi dafa yëkkati lu bari jox ko ne ko man kenn duma ci njëkk a jox ba mu ko wanee sëñ samat dane ko man kenn du ma njëkk jox ci sa euh, euh, leget gi yëkkati lu bari jox ko mu ne ko ñaanal ma nag Mbàkke ku ñëw daayira rek di nga def ci leget gi ku ñëw daayira di nga def ci leget gi nun ñuy yor suñuy doom bu ñu yaa laajee suñuy doom ñëw indi def ci leget gi ba leget gi tubaarkàlla macha allah kere ba mu ko génnee dafa jënd dafa fanweeri junni la ak juróom da cee jënd ay bool jënd ci ay palaat jënd ci lépp ne lu xam ne lii rek nong koy toggee rek dinaa ko jënd dinaa ko defaat ci ci daara ji nun ñii ba ñu dajalee suñu xaalis dafa ne loo xam ne moom ñu koy ndugg ak ñu ngi koy togg moom moo koy yeyoo nun daayira maam jaara Buso lu nuy dugg rek noo ko jënd euh, euh, caaroy moo moo moo moo xale yu góor yi te nun ñii noo ko moom te nun ñii noo ko liggéey nuy ñaan nag sunu doom yi nga xam ne noonu ko waafe yow sekk yàlla na nga gudd fan yàgg fi yokk nga nu xol yokk nga nu xalaat jërëjëf jërëjëf sëñ Basiru Bousso nag moom suñu cant ak moom xanaa di ko ñaanal saa bu nu jullee nanu ko ñaanal mu yàgg fi rek te wér mooy cant gi ñu war a sant sëñ Basiru Bousso ndax lii lépp mooma sëñ Basiru Bousso yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér. di sant sëriñ Basiru Bousso mi nga xam ne moo nu defal lii ndax lii daa fekkan nu bëgg ko lool te amuñu ko nu ko defal mu defal nu ko. kere ba mu nu woo ne sos naa sos leen fi daayira maam jaara ñëpp dañ cee sawar kontaan ci ñu sos ko euh, soxna jaara yi jàmbaare lool nag dañoo jàmbaare lool nag seen dara du des ginnaaw waaw seen dara du des ginnaaw man mii nga xam ne nag maa ci gën a oyof man lañ def tere sool yëpp de dërëm bu dugg ci maam jaar rek man mi maa ko denc maa ko encaissé maa ko yóbbu banque su ko yóbboo bank ñu daggal ma sama reçu ma ñëw jox ma tiloo mi jëwriñ ci di leen sant di leen gërëm mère Diop mit mooy yaayi soxna jaara yëpp def na nag ni nga xam ne ni moom la yaayi jaara di def def na ko ndax manqué wunu dara suñ dara manqué tu ndax moom kon naa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Serigne bu Bousso mi nga xam ne surtout soxna jaaral te def loo woon di mu yàgg fi lool nag te am wér ndax lii mënu defal bëggan nañ ko lool te ñu koo am kon bu ñu ko defalee at mu ne sëñ Abdou Samad di surtout sëñ tuwa di ñëw di ñu mm-hmm. sant ndax bari na ñu nekk ci dëkk bii te amuñu ko leen mhm. am kenn amu kon noo ngi sant di gërëm dajale tey mu sëñ Basiiru bu sox ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko jox waayam ndax ba mu nekkee jaxaay ba nëgëni si wax dëgg yàlla moom ah yaa xam gi de la ñuy rëcc waaye bañ ko xamee ba léegi rëcc amu ci di siyaar suñu sëriñ bi nga xamante ne daa jóge ba Touba ñu fekk suñu Touba jaxaay ñu kontaan ci lool am ci fête bu rëy rëy rëy di sant na soxna ñu xamante mooy soxna Mati Lo jëwrin ji meer di nuyu suñu yaay ji mel Buso ak ñi nga xamante ñoo nekk suñu ginnaaw yëpp ku lim juum doo juum sax nga dul matale waaye bàyyiwuñu kenn ñëpp limaale na leen ci biir di ñaan yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa mu yokkal ñu sutura bi ak taraanga yokkal ñu xéewal ba lu na mar leen dewee déwénee ci bis bii yal nan man lu ko ëpp bis bi luñ ci man bu déwénee yal nan man lu ko ëpp ndax kenn ku ci naam nga yéene def ko mennum yow rek ndax sëñ bi dana nekk ak moom fii wax dëgg yàlla yaa nga xam la ñuy rëcc waaye ba ñu xamee ba léegi rëcc amu ci mu am ak dal oofu na ñun ñëpp nag boole njaboot te njaboot neexu ñoo yore donc suñu sëriñ ñu nekk ay taalibeem ñu wéeru ci ginnaawam waaye mat na ko lool macha allah yal na a lafal ko cat ak bët sëriñ bi nga xam day déplacé fekk suñu koy ñaanal fan du gudd ak wér ak su boog at mu jotee bu ñëwee fekk nu fi ba li ñu koy yéene ci bis bi suñu borom yàlla yal na ko mottale am ndax kilifa gu déplacé wu ñu fekk si la te ñun ña waroon dem di ko fekk si mu woyof ñu fekk si nu kon am nu fayam sëriñ Tuubaa mi fay na yal nañu ko fayal kontaan nañ ci moom lool kontaan seen Bassirou Bousso mi nga xam ne moo ko fi indi defal ko taalibe yëpp nag pour ñëpp gis ko kenn ku ne gis sa bopp kon sant nañ leen du baax a baax a baax soxna yi ci sunu ginnaaw ak góor yàlla yi sunu doom yi bokkal na ci waañ wi seen taxawaay rafet na at ma jot wax dëgg yàlla nii da la ñu nekkee ak ñun kontaan nañ ci lool kon sëriñ Tuubaa mi am fay yenn ñu fayal ñun ñëpp yokkal nu sutura ak teraanga xéwal ba bis bu ñëwee ñun ñëpp kenn ku ci ne am nga xolub àttan ko def yow rek kon sëriñ Tuubaa noonu ko ñaan ko dagaan bis bi yal nañu defal xéwal gu saawaan baan goo xam ne bis bi ñëwee ñëpp dañ ko mën a def def ko ni mu ware def ko ni ñu yéene da kenn ku ci ne sa yéene ëpp na lii kon sëñ Tuubaa mën a mottali yal nañu mottali ci kattan yàlla ak baaxam aji démb Seydina Mouhamed lay nàmpal amagul sax xanaa kàttan mais yàlla dafa def xale bi sa jooyu ma mm. ma ñi topp ci sama mm. te di ma jàppale mënu ma leen a fay barki Serigne Touba damaa ne ci kanam rek waaye lu fi baax ñoo ko yaa ñàkk ñaan baax rek ñoo ko baax damay aaru damay yuux damay gëdd mm. waaye ñoom ñëpp a ma ñoom ñëpp a ma soxna si Mbacke na ñëw fii ci kanam ñëwal ni Balaye sa sëñ Mbacke maanaam ñëwal ni ci kanam. jël nuyoo bi teg ko ci loxol suñu waajur wii soxna Xadi Joom ndax yaakaar naa ku miin sëñ Basiiru danga ko miin biig guddee na fi lool te man loolu diis tax ci mag te lépp nag pas-pas moo ko waral bu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxoom. dana ko mën a jàllale ci ñépp wax ji nag du gudd la du gudd mooy jërëjëf gàtt na waaye sëñ Fallou waxoon na ne ku ko jëfut doo ko dégg sëñ bi bu taxawoon rek ne leen ngeen siggi xool ko mu ne leen jërëjëf xam leen ne lu lu mu ca yokk ca wax ja rek daa bëgg lu gën a rafet waaye rafet na ba noppi da ngeen xam ne lii ngeen def nga xam ne da ngeen koo def ci seen alal yi bopp yemu leen ci jël seen alal def ci ñàkk nelaw boole ci seen doole seeni coona yëpp ngeen def ko ci da ngeen xam ne defalu leen ko ko moom waaye seen bopp ngeen koy defal ndax li yàlla wax ci teral gan ak teeru gan rawatina nag nga euh, waajal ay bernde ba nga xam ne bu ko tiimee xolam sedd yaakaar naa ne kutiim lii tey lum leen ñaanal suñu borom dina ko def kon nag ku fi nekk yàlla na nga yokk ku yokkoon yàlla na nga gën a yokk ku amutoon yàlla na nga am ku wéri di woon yàlla na nga wér ku ñàkkoon yàlla na la yàlla jox ku am borom kër yàlla na la yàlla nañ ca sax te barkeel ñi ko amul yàlla nañ ko am ñi ami aajo yàlla na ko yàlla faj jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf sant